Sëriñ Tuuba Mamadou Malick woote na Pape Makhtar Kébé dana koy nettali benn bis ñëpp toog benn jigéen rek moo ko fekkee mu ne sama digganteeg sama mbokk mii ci Tuuba damay ñaan ku ci mën a wax lu rafet na nga ci wax ku ci mën ta wax lu rafet nga dimbale ma ndax ñoo bokk benn maam man ak moom. est yaa ngi dégg ku ci mën a wax lu rafet waxal ku mënta wax lu rafet sama diggante ak Serigne Touba bàyyi maam Serigne Touba fekk na ko njaar de. keroog bi ñu waxtaanee ba pare dañoo ànd ñoom ñaar dem ba ci benn garabu kàddu ñu gas sotti ca ndox kenn ku ne am loo jàng tafli ca Cheikh Maal dugal loxoom maam Serigne Touba dugal loxoom ñoom ñaar ñuy rocci suul di rocceendee di suul di rocci di suul ma jeex ñu maasale ko kenn ku ne jox sa morom loxo yëngal na ko ba aljanna la ñu waxante ñoom ñaar kenn xamu ko kenn nettaliwu ko sa morom ñoom ñaar dund nañu lool maam Serigne Touba wax ci moom waxam ju rëy ja ne la ah, mu amuñu seen fay. ne wa ma taxastu qalilan kuntu aarifuhu ilaa jaaltuka fawqal kulli fi rutabi wa ma taxastu jàpp ma wa ma taxastu amuma man Serigne Touba qalilan benn xarit kuntu boo xam ne nekk naa man Ahmadul Xadim aarifuhu di ko xam ilaa jaaltuka loolu teg naa la yow alaaji Maalik fawqal kulli nga féete ñëpp kaw fi rutabi ci daraja ju la yàlla defal. wa hakaza noonu la ko seq woon ak maam Serigne Touba ak góor gi du sekk bu yel maxtaar di mooy juru soxna Aminta Seck sunu maam mii way juru xalifa bii. dama wax la la ñoom ñaar ñoo daan bokk fu ñuy dal ci ndar ñoom ñëpp góor gi Mor Masamba Jéeri Jàkk moo leen daan dalal ñaar ñoo daan bokk fu ñuy dal daan nañ bokk benn pantre ci ci ci ndar ñoom ñaar Serigne Touba ci biir néeg bi Mame El Hadji ci biir néeg bi daje nañ benn bis maam Cheikhul Khadim maam Serigne maam El Hadji Malick El Hadji Thierno Dramé Cheikh na Cheikh Sadbou dinaa ñëw diggante ma Hadji Malick mooy feddale ñoom ñeent daje nañu ci benn jotaay cheikh na cheikh bu maam alaaji Malick maam Serigne Touba alaaji Thierno Dramé ci àndulaay te subaar jot ngeen alaaji Thierno yow lañ fekk si te nee nañ su mara marabul manzili mu ne waaye cheikh na cheikh Sadbu ñu ne ah mu ne moom mooy sëtu yonent bi te su yonent bi mooy sama sang cheikh na cheikh Sadbu ne waaye ah, sëñ Touba mi nga dafa bëgg alxuraan ba day bind kaamil teg ko ci kaw tëdd ci suuf kooku ko ñemee jiite sëñ Tuubaa ne alaaji Maalik mi nga xam dafa jeex ci yonent bi tàkk ba boo bëggee xam yonent boo demul këram doo ko xam maa koy jiite man sëñ Tuubaa maa lànk alaaji Maalik ne man tamit ku bëgg yonent bi ci ci alquran ba ñëpp xam ko ngay sëtu yonent bi alaaji Ceerno Dramé mag ci réew mi ëpp xam-xam dox fii ba màkk dem ba fekk fa sëtu yonent bi ñu rangale ay nit alaaji Ceerno Dramé war a tolloo quarante personnes mu ne quarante yi yëpp dinaa leen wax ku ciy sëtu yonent ñuy dem ba mu jàpp ci kenn xëcc ci loxoom ne kii rek ciy sëtu bi kooku topp ko ànd ko mu indi ko Sénégal Sénégal am nañ mag ñu baax ah maam El Mal ne kooku du ko jiite maa lànk coow li na kur sëñ Tuubaa ne xam nga nu ñuy def mu naa ni ñuy régler problème maa El Hadj Thierno mu naa mu ne yaay mag yaay boroom kër gi jiiteel bu tas tàkkusaan jotee seex na seex saat bu yaay sët yonent bi nga jiite bu timis jotee man ma jiite maay borom alquran Seydi Hadji Malick mi bëgg yonent bi te yonent bi indi diine ji mu jiite gaye ñu ñaanta tasaaro wasalaam ñu doxalee ko noonu tasaaro kenn doyalul. àndandoo bi. àndandoo bi. na fa mbay àndandoo bi neex na fa mbay takkaloo bi saf na fa mbay yal na yàlla xoole ñu mbay suñu ngam ni yóbbu ko Seydi Mbay Si lii la tëral na ci jaata ban di fëttal yal na yàlla dolli sagar adaram te wettili ko nan di ñaanal waa xadaram yàlla dootu fay sitaram nañ jibo tiijaan nañ jibo xaadir nañ jibo laayeen nañ jibo muritoon nañ jibo Sénégal ñoo ko moom tiijaan nañ jibo jibo xaadir nañ jibo laayeen nañ jibo murito nañ jibo Sénégal ñoo ko moom tijaan nañ jibo xaadir nañ jibo laayeen nañ jibo murito nañ jibo waaw asalaatu summa salaam annabi xayril anaam summa ali sahri kiram xéewalam di dolli ko macha allah jeexalaguñ de ndax yaa koy tëj Cheikh Tidiane yaa koy tëj xanaa waxtaan wi neex na doyaluñu benn yoon. waaw Aïcha Aïcha. waaw. léegi problème am Serigne Ba la tant que moom laaj nga la dafa ma laaj fanaan ci kër xale yi di lekk te lekk ko wala di xorma. waaye dëgg la fasala man qad fasala bu dee Cheikh Al Serfaat na ala fay ala fay ak aqraar maaliku dëri yow du loo sax lu mu wax awraatu woo fi wér di maa misluhu mën maam Serigne Touba nee na ma maam Cheikh Al Serfaat bu nee na madaarisuhu fi l-ilmi xayru madaaris wa awraatu woo fi dikri maa misluhu nee na école Maodo université Maodo bu mel noonu ci àdduna bi am dem kër Maodo fees dell ci xam-xam kër Maodo waaye wér wér saa saa di jóotu kamaal bu neex soo ko bëggee demal kër si Aliou Malick waaye kaay ma wala seet saa seet saa. soo ñëwatee kër si Aliou Malick bi ziare réew mi sëriñ bi nga seet bi ñu def ak margo bi margo. margo bi foofu la maam seet na seet saa daan daan. xoolu mag ñi. waaw ñu ngi ñu ngi ñëwaat ñu ngi ñëwaat ci yow oustaz parce que foofu nga nekk noonu. faaw faaw nga jeexal ko dañ lay yokkalaat euh, dañ lay yokkalaat temps parce que c'est important fu am solo nga nekk. foo xamante ne faaw faaw ñu ñëwaat ci euh, pour mën a wayal waxtaan wi ndax ndax am na solo xol yëpp tooy nañu. Euh, Cheikh Sarr Mouhamed Ndeye Dimet li mooy wane ne ñun Sénégal dañu am ay richesse yoo xamante ne xamuñu sax nu mu toll. ndax li nga fi wax ci Haji si jëm ci rek moom ak alxuraan ci moom ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëm ci moom ak xam-xam <laughs> mais yemul foofu jëm ci relation wam ak ñi nga xamante ne ñoom la fi fekkee mais également ñi ko fi fekk muy des relation yoo xamante ne très cordiales ay relation yu sincères ay relations yu set wicc yoo xamante ne am na ko ak moom loolu dafay wane ne euh, euh, tey jii tey li nga xamante ne moom lañ fi bàyyi comme patrimoine parce que patrimoine la lu ñu bàyyi Sénégal patrimoine la boo xamante ne ku nekk da ko war a def sa sacerdoce maanaam da nga ko war a jëfee da ko war di ko doxee danga ko war di ko gis tey di ci roy ah. parce que ñoom amuñu seen fay ci loolu nga xamante ne kon moom la ñu fi def ne lu baax euh, yaa ngi woon fi am solo oustaz euh, euh, dañu la doon may nga souffler un peu ñu ñu ñu ñu bàyyiwaat nga nga ñëwaat ci parce que foofu xam ne ñoom ñooy internet yi ñoom ñooy euh, réclamer ne foofu na taxaw ah, na taxaw tuuti ah, ah, ah Cheikh <laughs> ne nañ mu taxaw tegal foofu sa baaraam ni baay baay asphal mel na xam nga ko baay asphal transporteur mm. mooy papa oustaz Modou Fall bu TFM ndeysaan mu ngi ñuy message ndax moom moom boo tuddee sëñ Abdou Al Amin rek daanaka baay as day jaxasoo nee na ma waa kër gi yëpp jamono ji ñu ngi jàkkaarloo ak yow ñu ngi kontaan loolu bàcc Jóob itamit teraanga bàcc Amin dafa baax wallaahi ndeysaan suñu benn xarit Lamine mm. Lamine Gassama ndeysaan Lamine ma nga ba Daara Jolof ndeysaan di ñu di ñu di ñu seetaan jamono yi mm. nee na nee na mi ngi gàmmu gàmmu gëree ci biir këram ah, mais dëkk bi ñëpp a ngi gàmmu Mouhamed oustaz ni mu def tànk yi man man de loolu rek laa bëgg ñu ne bo booleel saaxo booleel saaxo transitaire la ba talibé talibé booleel saaxo talibé maam Seydage Malick la Tijaan la ñu koy nuyu bu baax a baax a baax mais mais mais Seydina mm-hmm. xam nga relation bi mu doon wax ci diggante maam Seydi Hadj Malick ak mag ñu baax ñi ci réew mi mm-hmm. Mm-hmm. bëgg naa tamit mu wax relation mam Seydi Hadj ak tubaab yi fii ci Ndakaaru ndax Fass gii ci Ndakaaru maam Seydi Hadj moo ko tuddi woon Fès gi nekkee Maroc Médina gi Youssou Ndour dëkk euh, te Bamba jiitu ko maam Seydi Hadj Malick moo ko tuddee woon Médinatul Munawwara ga ca Makka waaw maam Seydi Hadj moo moo moo tuddee moo ñaari ñi ma leex ni maam ko tuddee moo ko tuddee Medina moo ko tuddee Fass mhm. Mhm. mais bëgg naa mu ñëw ci maam Seydi Hadj Malick ak tubaab bi fii ci Ndakaaru mhm. mu samp fi zawiya di wajifa suba ngoon te tubaab yi ne fi di tere li ñuy tere te teewul mu nekk ñoom di dund ñoom diine ji c'est très important oustaz euh, am na solo dañuy bàyyi nga yeggale fu mu nekkoon après nga ñëw ci Cheikh Sarr li mu laaj ci parce que très important mhm. foofu également ñu ñëwaat fi ndax mhm. temps moom dañ koy yokk ndax ah. mënuñu koo daggee nii dëgg la ah, maa ngi nuyu Serigne Alaaji Mbàkke ca Touba sama xarit euh, sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke mooy woy juróom mhm. xalifa bu baax bu tedd ba maa ngi koy nuyu sëñ Alaaji sëñ Saaliw sëñ waa guy mbind maa ngi leen di nuyu di leen ziara ya nga xamante man ak moom ca dëkk bu ñuy wax euh, ca Tayba Ñang sëriñ bi di ñu fa yebal ñuy def conférence mm-hmm. ñuy jaar ci moom di nuyu sëñ Moustapha ak waa Taïba yëpp foofa laay daje ak ñoom at mu jot ndax seen yaay foofa la bokk mm-hmm. te xam nga sëñ Baara moom mooy borom Kajoor dëgg la ko ko may sëñ bi mënuma jël téléphone bi waaye maa ngi nuyu waa Guy Mbind yëpp mm-hmm. may daje ak ñoom foofa muy rafet lool dëgg la surtout toog nii di sëriñ Moustapha soxna Umu moo ko jur Seydi Hadji Malick jur ko maam Basiir Ñang moo ko jur maam Faat si jur ko ñoom ñëpp di doom moom alaaj maam alaaj Malick juru maamam bi jur baayam juru maamam bi jur yaayam muy daje ak ñooñu bu bokk di sëtu sëñ Touba loolu kon buñ ma wooyee dinaa leen nuyu siyaar euh, dama ko doon fàtte sax Fatou Abdou ñu baal ma rek ndax euh, Aline Mbengue Piri Range ah. euh, moo ko Piri Range Piri Range Aline Mbengue Omar Wali ndeysaan ñu ngi may message li may wax saa su nekk rek bu dee may nañu ko bu ñu mënoon joxe ñoom kenn ku ne sa numéro ngir organisation bu civilisé bi ñuy def fan yi mhm. kenn koo xamante ne rek yaa ngi ci yaa ngi leen di jox addiyee maam Cheikh Seydil Hadji Malick si mën na jaar ñoom ci seen ay téléphone direct mhm. te yow doo too ci am intermédiaire ndax euh, comme fan yi ñu ko doon def mu rafet lool mhm. bu ko defee bu joxee numéro am ah. ma ne Aïcha mën nañu joxe seen numéro bu joxee numéro am euh, képp koo xamante ni rek euh, yaa ngi joxe addiya Seydil Hadji Malick mu daal di jaar ci moom directement mu daal jaar euh, ci loxoom Aïcha Fatou du doxal mhm. Aïcha mën nañu Serigne Mansour suñu papa Serigne Mansour Sarr Serigne Mansour Sarr la ñu ngi leen di nuyu baax a baax a baax njaboot gi nekk Louga yëpp ñu ngi leen di nuyu ci njabootu maam Seydi Hadj Malick lañ bokk. Mhm. suñuy mbokk leen di ziare baax a baax a baax. Mhm. Mhm. numéro téléphone yi nañ ko joxe. ay sa ku bëgg a joxe addiya jaar na ko ci. dégg nga li boo mënee joxe sa numéro Seydi El Hadj Malick bi gars di ko ci jaar waaw ah ñoo koy ñooy laaj. te a a def. un dinañ ko sañ a jox ndax jaar na ko. Ah. moom <laughs> addiyee Cheikh Seydi El Hadj Malick la rek ñu ngi bëgg dugal addiyee yi. ah, ah, ah suñu suñu suñu jigéen bi ah. Mariama Diouf. man damaa daan sëñ ah. Mariama Diouf. est-ce que est-ce que kon. sëñ soxna Ibrahima Sall. moo tax waaw ñu ba Daaru ngi kontaan bu baax bu baax a baax. Euh, ñu ngi koy baax nga joxe numéro bi rapidement oustaz. wala ñu dem ci 613 99 68 orange. waxaat ko encore 77 613 99 68. Cheikh Tidiane. 613 99 ban numéro nga mën a joxe. 77. 885 80 80. waxaat ko. 77. 885. Uh-huh. waaw 80 80. macha allah ay ca sëriñ bi fi nga tolloon fi doon wax nga daan doxal seen Alioune. Uh-huh.